xam ne nag ñoo nekk ci diwlin ñaan yi euh, euh, balaa gën a neex su fi wax leen ko <laughs> du yóbbu du furi. non bu subaa sama <laughs> kenn du ko ñaam baas garanti la na ba laay andi mu waxal la kon mën na ko. <laughs> waaw moom moom ko gën a mën sax di ñaani du lakk du way te du fuur. <laughs> kese comme ni ñu ko waxee vitamine A la ñu ko la ñu ko enrichiré defaree ko ak gerte gi nga xam ne fii lañ ko bayee mim réew euh, dèjà ni tey comme ni ngeen ko gisee maa ngi andi laax bi nga xamante ne ni moom laa defar laax bi nag maa ngi ko defaree mbokk ak sànqal laa jël nii mélangé ko. Euh, dama teg ndox mi def euh, tuuti beurre bocage euh, daal di bàyyi ba ndox mi baax ma def benn pincée de sel daal di jiital li nga xam ne mooy mbokk mi bàyyi ba mboq mi commencé ñor comme te mboq bi moo gën a dëgër ma bàyyi ba mboq bi ñor ma daal di jël li nga xam ne mooy sankal bi def ko ci bàyyi kook moom ba mu ñor gis nga ni ma am aspect bi lii damay ñëw rek jël jus d'ananas daal di ci sotti jël tuuti sucre vanille daal di ciy def moom tamit gis nga ni rek euh, pour laax bi gën a am guula ma jël tamit fleur d'oranger mën naa utiliser rek euh, benn bousson gis nga ni ma def ko ci nii ci kaw su ma paree aussi ma daal di jël tuuti beurre bocage rajouté ko ci su ko defee dafay gën a facilité booy lekk laax bi da nga ciy sentir euh, li nga xam ni mooy fleur d'orange bi jus d'ananas bi sucre vanillé bi ak li nga xam ne mooy beurre bi gis nga nii rek ma am benn laax bu compact am couleur bu rafet macha allah voilà gis nga nii rek euh, ça donne envie euh, gis nga nii euh, laax bi pare ni moom mën naa fay gaz bi parce que boo ci defee fleur d'oranger bi jarul nga koy bàyyi muy bax ak moom de trop comme te ni déjà ñor na damay bàyyi rek beurre bi seey ci mu mélangé wu ak ingrédients yi ma ci def sànq mun nañu ko fay bàyyi mu xaw a seddandi ma ñëw defal li nga xam ne mooy soow bi gis nga ni nag damay utiliser les concentrés non sucrés lay def ci li nga xamante ne ni mooy soow bi su ma paree ma jël jus d'ananas bi restant bi daal di ciy sotti daal di ñëw aussi jël li nga xam ne mooy les concentré sucré boo xamante ne nii dama ci def muscade à l'avance pour mu gën a am goût déjà moom tamit damay ñëw rek daal di ciy sotti benn quantité mélangé nga ni nag euh, mën naa ñëw aussi daal di ciy rajouter tuuti sucre parce que lait concentré bi ma ci def dafa am sucre moo tax benn cuillère à soupe rek laay def pour relever li nga xam ni mooy euh, goût bi voilà mën naa ñëw aussi rajouter ci sama lait concentré non sucré aussi karaaf bi mën a fees ma ñëw daal di jël aussi li nga xam ne mooy fleur d'oranger def ci quelques gouttes rek euh, comme ça li nga xamante ne nii mooy euh, soow bi dafay naturel ñu bañ ci def ay euh, affaire yu artificielle nga xam ne boo koy lekk dafay ballonné sa biir wala du gaaw a digéré wala tout la journée boo koy lekk bu essence bi bare danga ko ciy sentir voilà gis nga nii rek soow bi nii pare la. gis nga ni boo xoolee soow bi nag dafa xaw a parce que dama bëgg mu compact mën naa jël fii à benn soow boo xamante nii dama ko réserver woon daal di ciy dolli pour mu compact parce que bu fekkee laax soow bi warul oyof noonu dafa war a compact comme ça boo ko dekkee ci kaw laax bi mu bañ di rogalaat wala di échapper voilà. gis nga nii rek soow bi moom pare na. damay nettoyer rek sama plan de travail ba mu set su ko defee ma daal di jegale li nga xamante ne ni mooy benn assiette jël sama kook ñëw mën a defar li nga xam ne mooy euh, tibb assiette bi nga xamante ne ni voilà lii mën naa ko teg gis nga laax bi nag dama ko def de telle sorte que ni dafa compact bàyyiwuma ko mu kii parce que euh, sànqal bi laa boole ak li nga xam ne mooy euh, mbokk bi day doon euh, benn euh, kii laax boo xamante ne ni dafay am plein de vitamine parce que ku ne mbokk xam ne li muy def ci wér-gu-yaram ñu jëlaat sànkal aussi daal di ko ci rajouté loolu du nekk du doon lu dul rek lu gën ci suñu yaram moo tax ñu leen di présenté de temps en temps ay plat yoo xamante ne ni dafay gën ci ñun baax ci suñu wér-gu-yaram déjà ni tibb naa benn plat bu yem tey defuma ko ci ay verre dama def benn plat rek su ma paree damay ñëw rek jël sama karaafu soow di ciy sotti def benn assiette bu généreuse voilà nii rek yi ñu ciy def nii yëpp c'est facultatif bu la neexee nga def ko ci bu la neexee nga bañ ko ci def mais man dama am quelques ananas rek dañ koy nii rek euh, daal di koy sànni ci kaw bu la neexee aussi nga daal di jël euh, coco rappe def ci bula neexee nga jël euh, soit poire wala raisin daal di jël moom tamit def ko ci kawam du ci yàq dara déjà nii damay ñëw rek jël tuuti feuille de menthe. daal di koy teg nii au milieu génnee verdure bi su ma paree na tamit de l'autre côté am naa raisin sec moom it ma ñëw rek daal di ko ciy saupoudre nii nànk rek ci kaw. nga xam ni dafay génnee couleur u assiette bi te dafay gën a jox euh, suñu laax li nga xam ni mooy valeur bi ñu ci soxla déjà mi ngi ni euh, laax bi pare na te lii mën nga ko defar sa kër mën na doon reeru dimanche wala soit le soir goûter xale yi wala ndékki bi aussi mën nga di defar li nga xamante ne nii mooy laax bi nga di ko ndékkee parce que dafa am solo des des fois tamit nga defar fondé comme fonde bi ñu andi woon euh, la fois passée defar benn fondé bu oyof le matin nga jël ko wàññi pain bi soo bañee tool ni man mën nga di jël fondé bu oyof <laughs> <laughs> di ko ko lekk euh, bàyyi Cheikh le matin da ci am solo. et dafa gaaw dafa gaaw dafa dafa togg bu gaaw la. waaw togg bu gaaw lay doon parce que déjà mbokk bi rek euh, plein de vitamine la. Mhm. ak euh, li nga xam ne mooy sankal bi nga boole yëpp def ko benn laax defal benn soobu oyof lii pourquoi pas bu la neexee sax mën nga ko boole ak tuuti natari. Mhm. nga diversifier tuuti. Mhm. wala nga def ko comme ni ma ko defee nii rek def soow. def quelques fruits ak raisin sec ci kaw bàyyi Cheikh. mag ñi mag ñi dañoo mus a nekk en bonne santé. ndax yi ñi daan dundee. moderne lu moderne lu nañu dugal ko ci mbay mi lu nañu